non ñun moom. ah. dara foqal suñu bët ba ñuy daw ñu. a ah. ndax ñun ay gor lañ. ah. faram daan ay gor lañ faramaarin ay gor lañ ñoom daw dara fokul seen bët ndax le war lool seen diggante seen artiste lépp ñoo ngi koy def lu ñu daw ko daw dem fan. mais dañoo jot benn information. waaw que ni waa The Best yi. ak ñoom Gilles. xaw ma ñooñu dañoo bàyyi Subatel Jobes sax xamoo ko. ah Jobes baax la maa ngi koy nuyu di ko siyaare. dégg naa bàyyi na Subatel. waaw na ko yàlla taxawu mu am liggéey bu baax. ni da ngay gëm sa bopp comme ni mu def noonu la affaire moom sëñ bi foo gisul avancement da ngay rocce. bett ñu bari information boobu. xam nga musique duy pexe liggéey duy pexe. lan mooy pexe daa am ci mbir mi. waaw ah, man musique duy pexe liggéey duy pexe waxuma nag Jobes ku baax la waaye loolu laa bëgg ngeen. mais soo waxee loolu day mel ni wax ji am fajartel musique daal maa ko ubbi muy ab label bu bees. da ngaa yor loo tijjee si fajartel moo tax muy pexe non délégué ne gars xaalis moo koy def. xaalis koy def. maanaam da nga wax ne la ci label bu bees bii ma ubbi muy fajartel musique yii. am xaalis te ay la waaw. ñan ak ñan nga jot a maa ngi xool booy maa ngi xool ah. da ah. ñëpp. jërë ñaan paas bi loolu ah, ñu fayee tant que ay musiciens ñu am ci ñoom yaakaar ñuy daw lan moo tax lan mooy waral cause daw yi bu dee daw bi lu am na. waaw lan moo waral cause bi cause bi. bu dee daw bi lu am na. fekkee ne situation bi ma dégg moom lañ doon dund fii ci réew mi. daw ba àbb seeni daal la kay moom jar donc ànd nga ci daw bi yow. bu dee la am na laa ah. ak situation yi nekkee woon fii bu fekkee ne loolu lañ doon dund jar na daw ba seen i daal la kay. mais gars yi dañ yi nekk ci label yëpp wala nekk ci orchestre yëpp ñooy dund loolu lu mel noonu. non non non loolu yéen ay journalistes ngeen. Ah. yàgg ngeen a def information ci Youssou Ndour wala Wally Seck wala Pape Diouf. mën yu Pape wala musiciens wala musicien musicien Wally mos am. am na kay. déedéet non mais darul feeñ. kan la ci déedéet déedéet déedéet mosul am boo amee rek ngeen xam ko. donc nga jàpp yow tax booy daw ko déggu li ma la wax su dee daw gi am la. waaw ah. fekkee ne bi ma dégg ni moom lañ doon fii ay 15000 francs kii 20000 la kii 10 000. c'est loolu moom jar daw ba sa daal di lakk. mais yaa ngi wax da ngay teg sa label te label doole la yow boo ko tegee tamit parce ma du ma xuus. dugg sa kër. di xuus baa ñu ngay am gan di la tegal di nga tegal ay fruits yooyu xeex yooyu kenn délégué ban patron moo fi la ñuy dugg këram di xuus. bëri na. ah bon yàlla yàlla musal ci patron yooyu. man daal patron bu modeste laa patron bu gëm sama du ma manqué fay da mukk di message la saaga wala ma lay manqué de respect loolu a ñëw euh, am na amul ñi nga xam ne ñooy label boobu noonu. da nga am ak man dafa am nit koo xam ne. Hmm. message di ma saaga tey. kan la dossier bi nag ngi ci yoon. mais yow nga porté Matar Diop suba teel la. Matar Diop moo la saaga ndey. lan moo tax ma saaga ndey di ma menacer yooyu mais dossier boobu ginnaaw ma ngi ci yoon du ma ci wax. lan moo tax mu ba ci yoon nag dina leeral loolu. dala nga nag yow yow da ngay tooñ de. yow ay fajarteel ak ay xuus kër jàmbur ak yooyu noonu yow. ah fajarteel yaa ko moom. non dama ne. xam nga boo nee fajar xam nga boo am na fu xel yi di dem. sama bos fa yow baalu woon nga fi yow tooñ nga ba tiit dégg naa nga dem tiit baalu ba léegi déggu leen ci gémmi ñu amar mu ni diw baal ma àq wala nangam de ah bi nga demee loo ko doon def kon ko taxulaay nañu wax daal li nit da wax li nga xam ne moom moo a ah, waaw léegi bi nga demee kon loo ko doon def si trop tard nekkatuñu nañ nekk ci lañ sunu kanam man damay bañ nga baaluwaat rek billaahi bu ma nammee baalu nit ku ma tooñul yàlla naa suul sama waajur jigéen nit ku tooñu ah, la namee baalu kon lan moo tax moom mu la doon woo di la saaga wala mu lay message la saaga waaw xaw message mi ngi sama téléphone del naa lépp jébal naa ko justice dinaa xool nag ba xam justice dina def liggéey ma du deful liggéey ma dinaa wooyee point de presse def point de presse leeral tax ma def sama ma am yoo xamante ne nii que jot naa ko sama téléphone jël affaire bi jébal ko ci parce que loolu danger la. kon da nga porté plainte ni yàgg na parce que man nekkatuma ci nekkatuma ci jàmm danger ci danger laa nekk. Ah. ay nit buñ la waxee loo gis man la menace de mort ak yooyu yëpp am. loolu loolu nekkatuma ci jàmm moo tax ma dem jébbal plainte bi jox ko waa yoon maa ngi déglu nag yoon ba xam nan la wàññeem di mu dégg ba tam. menace da la ah menace. non man du ma dama dem pour juste ko wax ko waaye yoon nga xam ne ëllëg lu ma dal ñu sóoraale tey bu fekkee defuma dara dem toog jàpp sama jàmm dara dal ma xaw ma ma mën a sukkandiku. Hmm. voilà loolu rek tax ma dem ci du ma du ma ku yàlla bind waaye daal yoon ñëpp la fi nekkal. mais ñu xamal nañu ni euh, sa xarit sa papa sa di Cheikh Amar xaritam la moom moom Matar Diop moo tax juboo warul mën a am. sa diggante ak moom d' autant plus que ay xarit lañ. loolu moom xaw moom. xaritam dëgg dëgg dëgg moom doo fekk rakkam ah nga di ko bañ baa ngay bañ ko koo xamante ne nii ku rakkam bëgg la loolu laa jàpp man au na ma lu rafet ci moom ma jàppoon ko def ko sama xol lenn it du ma ko ci sikkal mooy nee na Cheikh Amar moo daan fayal jàng école France loolu moom xam nga nit la bu wax ko loolu moom dañ koy rafet waaye man góoma yeen yi quoi di màtt ci kaw di kii ci suuf man góoma yeen ah dafa am mbirum mat ci kaw ak ëpp suuf. man daal lu ma daal te góobu loolu laa mais sa dossier bi problème bi ngeen fi amoon moo si jàppoon pour di wut ay avocat yooyu pour ngeen pour moom Matar jàppale na leen bu baax pour ngeen génn foofu. ah ki la saaga. non non loolu dëgg la. man sama dossier bi ñu amoon maa jëloon sama bopp avocat maître Tall sama avocat personnel la maa ngi koy nuyu à passage du maître Tall ak maître Bamba Cissé ñooñu samay avocat lañ kon amul kenn koo xam ne man ma demee ba nit di ma jëlal avocat ah bu yeboo ma dem Tall sama bopp wala ma toog ci armée rek xaar yàlla xam ne man téye ko ma dara ci dëkk bi. mais tamit ngeen ngeen seq jàmm moo gën ngeen dem. aw at problème kenn. waaye menace kay bu amee problème am na nag délégué actualité sëñ bi bu amee ci réew faaw ñu wax nañu waxtaan rek showbiz showbiz la showbiz amul am na kalaasante am na lu ne mais amul saagante yow gars yi dañ lay déglu voilà man du ngeen ma gis ma manque de respect kenn du ngeen ma gis ma saaga kenn parce que loolu du showbiz showbiz kalaasante mënu cee ñàkk comprendre nga fi may waxee. mais man du ma tooñ du ma menacé kenn. fan yee passé rek am na benn gel boo xamante ne moom fekk Zelato euh, di ma saaga ndey di tudd sox turu kooku di tudd seen label bi di tudd. ah waykat bi waaw di ma saaga ndey yooyu yëpp ay menaces yu may jot. comprendre nga kon man du ma aw ma temps di nekk fii di xeex wala wala justice yoon ñëpp la fi nekkal ku amul woon métti nga dem ci yoon balaa nga kese la. ah ay menaces affaire mu mujj a pako. waaw daal en tout cas. mais daal li jënd leen xam naa yëppam. waaw mais mais délégué est-ce que doo rétrogradé kon doo teggi sa tànk. xalaatuma yooyu loolu dana yokk ñoom waaw yow xalaatuma ko. soo bis lan laay lan tax na nga toog fi nga toog man ci actualité laa ne. ci actualité ngeen ma fekk lu xew ma wax. yaa ngi dem ba taxaw naa da nga taxawal label fu ne nii sof nga sàpp ci showbiz bi. sama label bi man na label bi ñëpp di jàngkat ci ñëpp laa ci mën ñëpp mën parce que ku am lu baax moo ma kii yàlla ci rek kii dafa neex Le capitaine est là. mais le président des communicateurs traditionnels. mais Omar mais Omar da ngay Omar mais Omar da ngay ñëw ràbbi tàkk Omar Omar dina la Omar Omar. le communicateur le capitaine des communicateurs. bakkan lay laaj. affaire bakkan lay laaj mais sànq dama si naan sa vidéo. waaye le capitaine du peuple Wally Seck mooy le centre du peuple. dëgg la loolu am na loolu ñëpp a koy dugal TikTok bi ñëpp a koy dugal. waaw loolu am na ak ñi nga wàccee si réew mi fi mu toll nii. waaw xam nga tey jii kenn gisagu la stade bi dugg naa ci jamono ji. waaw suñu capitaine xaaral waaw tey la tey la waxal waxal rek tey ci fajar laa ñëw waaw ambassadeur may indi waaw Wally c'est le chanteur du peuple waaw Omaro c'est le communicateur du peuple waaw loolu la yàlla dogal waaw tey sëñ Bamba communicateur yi danañ tegal faramaari ñu yaa ban pass ngay fumal Omaro maa la ko xoola tànk yi xam nga ni tànk du tànk son Omaro Omaro ban pointure ngay sol 9 la 47 48 la ilaha illallah 47 48 lay sol mooy mon ami waaw da ngeen liggéey am na problème am na papis ndeysaan eh échauffement échauffement échauffement mu gaaw échauffement mu gaaw waaw ah, ah, ah. wokk plastique du football si si gazon bii de. communicateur traditionnel luñ nar. non non nii rek. nan ko assuré. nan ko assuré. doomu mbay peex bi moo gën a neex Siré tey dama ñëw ci terrain bi dama tey grand boobu bi ma ko dindi non peex ko peex ko caay ji ma solol dama ko dindi macha Allah tubay ji ma solol dama ko dindi tey nag lan laa def dama tenue tenue waaye nag tey communicateur yaa ngi nii. dëggantaan tey. ñu ngi jàmmaroog ñoom les musiciens la. tey nag lan war a fubal Alassane Mbaye le gré des VIP jiitañu. tey communicateur yëpp yaa ngi nii ñoo ngi xaar nag. jottali rek lan man jottali rek lan man tey nag danaa andiwaat 88. ah 87. 86. Ah. Mhm. ba 89. jamono yooyu laay andiwaat teg ko. ci terrain bi waaw teg ko ci terrain bi. teg grand boobu fële. waaw ndax tey. Mhm. man la ñu def. latéral gauche. yaay yaay lan laa Cheikh Mbacké. nañu nañu may séen nag wala maa koy joxe man. tey da ngeen gis lu ne. waali nee ko na waaj. waali waaw. lii damay fàttaliku. bi ma gars yi commencé ko raay biir. bi ma bi ma gars yi sélectionné yóbbu ma Ndar. waaw. parce que bi ñoom ñëpp ñu jom mi ma dugal bi ñëpp di coow. na defee na xam ne gars yi mënuñoo cadre jottali rek lan man de. Ah. ak wax lu baax. tànk yi mën na <laughs> waaye sama maa ngi jooy sama tànk yi de. tànk yi wuute na tànk yi doon football AS Douanes tànk yi wuute na tànk yi doon football Africa Foot ci yéen tànk tànk communicateur ku mu gis. sama père maa ngi échauffé ba tey. gën leen teel a bi gën. saxal nga war ma laa jëm Macky Sall waxal ci lii lépp lépp ci bëgg président am ndam rek barki sëñ Tuubaa lépp ci bëgg président am ndam rek waa dëgg la de waa dëgg la de waa président Macky Sall troisième mandat troisième mandat bu ma bëggee waaw kay. troisième mandat. waaye wax naa ko wax naa ko barki démb nee naa ko gis nga dugg nga ci loo xamul tey nag dina xam ni bàyyi ko ba mu egg si mais wax naa ko dugg nga ci loo xamul barke alxuraan man nag heureusement ba dugguma ci terrain ndax man bëgg naa ko bëgg koo xam ni bal bu ma jot moom laa koy paas bu ma faree ak moom bu ma fóorut ak moom ci kanam tuuti dina lépp day leer ci kanam tuuti. ah man nga ne laa ne yow. c' est pas une troisième mandat mais c' est un deuxième quinquennat. le président Macky Sall. non tey yomb de eh. <laughs> man damaa ngoog. waaw sama gars borom Thiès. ah oui xam nga rek tey dañuy ñëw pour jingal yaram bi. jaajëf waaw sëriñ bi li mu def nii.